société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse tali na jàmm ñu ànd xëy yër i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi ci xën mu njëkk ma ñu fekk fa préfet bu Ndakaaru muy tere ay marche ak i manifestation ci département bu Ndakaaru préfet bu Ndakaaru ci biir journal bi daan wax ne juróom-ñeenti fan ci weeru juin jàpp fukki fan juróom benn ci weeru juin bëgguma gis benn manifestation wala benn marche ci département manifestation mën naa am ay yàq tamit mën naa am bokk na ci li tax mu daal di tere ay marche ak ay manifestation ci département bu Dakar juróom-ñeenti fan 9 juin ba 16 juin yéen kay gi di bés bii xëy du ñu xibaar naan ñu plateforme f ñoom nag tey jii ci samedi ji bëggoon nañoo amal ab doxum ñaxtu ci weeden bi waaye nag préfet bu Ndakaaru daf leen ko mujjee tere yéen kay gi nee na tere gi nga xam ne préfet bu Ndakaaru tere na ko waa F24 marche bi nga xam ne bëggoon nañu ko amal ñoom waa F24 daan nañu si tënku ndax bi nga xam ne secteur privé bi def tabaski gi nga xam ne mooy dëgmal loole moo tax ñun waa F24 manifestation ak marche yi nga ne bëggoon nañu ko amal lépp teg nañu ko ci suufa yéen kay gi di enquête xëy di ñu xibaar naan ñu fan yi ñu génn ay manifestation yu métti métti amoon na ci réew mi waaye nag manifestation yooyee am na ay njeexital bu passé ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan koomu réew mi maanaam économie réew mi dafa daal di nërmeeloo ñi nga xam ne ñoo nekk ci informel bi yëg a baax a baax ñi yëngatu ci lu jëm ci wàllum jënd meeg mi ñoom tamit yëg ko bu baax a journal bi nee na bëri na ay rendez-vous yoo xam ne dañu ko annulé am na yenn yoo xam ne dañu ko daal di dàq professeur Meissa Babou di économiste di jàngale ci université Cheikh wax ne manifestation yi nga xam ne moo amoon ci réew mi loolee lu doy waar la ci économie réew mi ndax Sénégal économie réew mi économie la boo xamante ni maanaam demeewul noonu boo si yokkee ay manifestation loolee na danse la yéen kaay gi xëy di ñu xibaar naan bëri na ay client ci lu jëm ci wàllum tourisme yoo xam ne dañoo mujjee tiit ba maara détaillé journal bi du l'observateur nee yi nga xam ne moo amoon ci réew mi nërmeelal na li nga xam ne mooy tourisme bi tourisme bi jamono ji mën nañoo wax ne dafa nërmeeloo ndax ñu bari ñoo xam ne defoon nañ ay réservation hôtel dañu ko mujjee annulé bëri na ñu nekkoon ci hôtel ñoo xam ne dañoo gaaw daw dem rawatina ci diwaanu Mbuura ne balnéaire bu Cap Skirring moom ba léegi mënut a gis ab client yéen kay gi du l'observateur nee na manifestation yi nga xam ne moo fi amoon fan yi ñu génn moo tax bëri na ñoo xam ne teg nañu leen loxo tribunalum Ndakaaru bëri nay manifestant yoo xam ne jamono ji ñoo ngi fay lijjanti seen i am na si ñoo xam ne jël nañu leen yóbbu nañu leen sa kaso ba am na si ñoo ne dañoo feebar ñu jël leen yóbbu leen pavillon spécial am na ñu ñu def contrôle judiciaire am na ñu ñu takkal bracelet électronique journal bi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naa ñu Cheikh Bara Ndiaye bokk na si ñi nga xam ne dañu leen a mandat dépôt waaye jël nañu ko yóbbu ñu ko pavillon spécial ndax dafa feebar journal bi nee na Pape Abdoulaye Touré mandat nañu ko dépôt yéen i kaay gi de Libération nee moom am na retour de parquet Ben moom tim am na retour de parquet journal bi nee na jigéen ñi nga xam ne ñooy jigéenu bois sacré yi ñoom ay bracelet électronique la ñu leen takkal bàyyi nañu leen ñu ñibbi yéen kaay gi di leen foo xëy duñu xibaar naan ñu gouvernement bu Sénégal ñoom nag mbooleem jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci réew mi ñi ci faatu ak ñi ci yàqule lépp nag Ousmane Sonko la ñu wax ne mooy responsable bi ndax nee nañu Ousmane Sonko li mu jikkowoo maanaam mooy woote violence ak bëgg a fexe réew mi dugg ci kaawa ñoom waa gouvernement bu Sénégal nee nañu Ousmane Sonko moo def ab vidéo woo ñi nga xam ne ñooy ay militam ak ay farandoom ak ay soppeema ngir nag ñu ñëw Ndakaaru daal di salfaañi mi daal ba réew mi kenn du ko mën a gouverner maanaam boole ki réew mi ñoom nee nañu Ousmane Sonko moo woote li nga xam ne mooy ab combat final talam sa mooy renverser nguur gi maanaam daaneel kon loolee moo tax ñoom waa Benno Bokk Yaakaar nee nañu ay nit ñoo jokko daal di organiser wu yàq di saccager te nag loolee moomee lu la ay sabotage ñu def ci installation ndox lu jëm ci wàllum courant bi ak fonctionnement bi waa gouvernement bi nee nañu en tout cas manifestation yi nga xam ne moom la ñu gisoon ci réew ay nit ñoo jóko bëggoon a def ab coup d'état yéene kaay gii di las nee na ci manifestation yi démb am na lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay mineurs yoo xam ne doon nañu leen attee ci tribunalum Dakar waaye nag dañu leen mujjee bàyyi seeni at dox diggante fukki at ak juróom jàpp fukki at ak juróom benn yéene kaay gii di vox populi xëy duñu xibaar naan ñu wal fajiri jamono ji ñoo nga ciy jafe-jafe ndax seen signal bi dañu ko coupé ci lu toll ci benn weer ministre bi ñu dénk wàllum communication di maître Boussa Bokar Thiam moom moo ko daal di coupé nee la tax mu daal di koy coupé mooy manifestation yi ak li nga xam ne waa Walfadjri doon nañu ko direct loole moo tax ñu daal di koy moo moom ministre bi yemul foofu ma ngi dànkaafu waa Walfadjri ngir retiré li nga xam ne mooy seenub licence Walfadjri yéen kay xëy duñu xibaar naan ñu guru Walfadjri ginnaaw toogaanu ñaxtu bi nga xam ne doon nañu ko amal nee nañu état bu Sénégal dafay guerre ak ñoom waaye ñoom tam dinañu ñu yéene jàmmarloo ak nguurug Sénégal maanaam danañu ko defante ak ñoom waa guru Walfadjri nee nañu mbooleem li nga xam ne ay activité gouvernement bi la dañu koy daal di boycotté Cheikh Niass nee na personnel bi jamono ji yóbbu nañ leen chômage Technica ab marché boo xam ne ñoom nee nañu dinañu ko amal wuti palais ba Cheikh Niass ci biir journal bi nee na saisir na Cour suprême nee na tamit li am ba de sàll nee na bu dee li ñuy wax naan pro Sonko la kon nee na pro Sonko la waaye nee na tamit Ousmane Sonko bu ñu ko éliminé ci élection yi musiba mën naa am lambay mën naa ñaaw moom Cheikh Niass nee na sondage yi li mu wane ci élection présidentielle 2024 Ousmane Sonko moo koy gagné ci premier tour bi yéen a kaay gi de la tour bi na ñu personnel bu Walfadjri Macky Sall jàppee seenub signal loolee teguwul fenn jaaduwul yéen i kaay gi de Les Échos nee bu ñu waxantee dëgg presse bu Sénégal ci boppam moo nekk ci danger yéen i kaay gi di xëy di ñu xibaar naan ñu Cheikh Niass moom li mu gis mooy acharnement boo xam ne dañu koy def ci Walf Fadjri yéen i kaay gi di Vox Populi nee na ab cagnotte boo xam ne dañu ko lancé ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy waa Walf Fadjri bi ñu ko lancé millions yi commencé daw Guy Marius Sagna moo sumu mbir ma waaye nag la ca mujjee ama waa groupe Walf Fadjri nee nañu état bu Sénégal moo mujjee bloqué fondation Walf Fadjri ci plateforme Pastef yéen kaay gi moom Cheikh Niass nee na lu ëpp 60 millions yoo xam ne weer wu jot danañu ko génne ndax am nañu gën gaa yées lu toll ci ñaari téeméer ci ay liggéeykat yéen kay gi di 24 heures wax ci dialogue national bi nga xam ne liggéey yi ni ki démb lancé nañu ko commencé nañu ko Tanor Thiendella Fall moo ko lancé activité ci direction générale des élections yéen kaay gi di Stades nee na tey la tey finalu Ligue des champions diggante Manchester City de Milan tey jii la bu 19 heures jotee journal bii di sunu lamb xëy di ñu xibaar naan ñu franc nee na nañu ko jox mbër mii di Eumeu